waaw yow mi bëggul dara rëcc la ci réew mi maa ngi lay digal nga suivre concept bii tudd récap du jour fii ci sans limite TV maanaam lundi ba vendredi dañu lay jox xibaar yu wér te woo muy wàllu people wàllu politique ba ci xew-xewu jamono tubaab bi naan ko fait divers dangaa bëgg a xam xibaar yi ñeel sa artiste préféré sa acteur préféré wala sax sa influenceur préféré récap du jour daf la koy jox en temps réel sans limite TV xibaar yu amul limite xibaar yu amul. salaamaaleykum salaamaaleykum suñu mbokk internet di sans limite c'est toujours un plaisir di ànd ak yéen ci seeni i différentes émissions rawatina récap du jour mën nañ ko woowee sax magazine c'est tous les jours euh, wala sax du lundi au samedi à partir de 14 heures de temps en temps ñu def ko 13 heures ça dépend ci actualité bi fi mu toll ndax dañuy bëgg jël actualité li ci gën a fës wala li ci gën a récente ci wàllu information dañu koy ubbee ak ki nga xamante ni moom mooy Tarba Mbaye Tarba Mbaye dañu jékki rek gis. ay photo yu fuité mu ànd ci ak ki nga xamante ni mooy soxna bëtóor yéen a ngi koy gis noonu ci écran bi ak soxna bëtóor ñu mel ne ku nekk ci seen mariage euh, jamono ji may wax ak yéen nag ñenn ñi ngi wax euh, naan Euh, takkum suuf la am déet en tout cas jàppale ni xibaar baa ngi noonu euh, Tarba Mbaye ak Soxna Bator ñoom ñaar ñu ànd en toute complicité euh, di def ay photo wala sax ci biir photo yi ñuy gis derrière comme li ñuy faral di gis monsieur Nangam madame Nangam ñu gis ñu bind si madame mbay ndax dëgg la am du dëgg ndax dafa am lu ñuy waajal clip la am déet en tout cas sama Sénégal 221 di compte TikTok bu nga xamante ni sénégalais yi dañu koy bàyyi xel lool voilà ñoo sax ñu ngi relaté information boobu. lu ci mën ci am dinañ ko topp et puis dinañ ni yàgg comme ni ko olof di waxee yàgg euh, bawul dara bu ñu fa jugee dañu dem ci ki nga xamante ni moom mooy oustaz Modou Fall oustaz Modou Fall gis ngeen ni dafa def benn sortie di défendre Aziz Ndiaye euh, di ko défendre di ko kañ di ko banque ni di ko bàkk ni ko bëgg euh, maanaam raw Aziz Ndiaye nga xaar ko alaxira ndax fii ci àddina raw na ba pare donc ñan la raw ñan la bëgg a waxal de toute façon tuddul tur mais wax na ba yëkkati ay kàddu ay baatu fenn di ko yë jëmale ci ñi muy gaar gaarawaale donc ñan lay gaarawaale en tout cas mi ngi noonu internet yu baree bari nag quand ñu ngi si di euh, commencé di mer di ci yëkkati ay kàddu di wax jàpp ni euh, ki nga xamante ni mooy oustaz Modou Fall dafa arrogant dafay wone benn arrogance ñenn ñi jàpp ni xaalis moo ko lal ba am na sax ñuy wax ni dañu ko jox xaalis ngir mu daal di défendre euh, ki nga xamante ni moom mooy Aziz Ndiaye bon de toute façon ñun kuñ naan ku dee ca marché yaa tàggi sa bopp euh, xëy na sax mbir mi bu lune de miel beeg yooyu noonu eggul woon ci place publique bi amaana presse bi wala ñenn ci presse bi du ñu ci daal wax mais également luñ ci munti am ñun sans limite TV sama kàddu ñu ngi koy euh, souhaité quand même moom Aziz Ndiaye bu dee euh, soxnaam bii di miss dafa dem këram dafa fay comme ni ko olof di waxee donc de toute façon ñun ñu ngi koy souhaité rek mu daal di ak nga xamante ni moom mooy soxnaam mais bu dee aussi la bon tant mieux Euh, tontoogu ko mais def na benn vidéo ni euh, oustaz Modou Fall yow maa ngi ñëw ci yow maa ngi ñëw ci yow ndax dafa bëgg def benn vidéo wala Adama dafa jàpp ni oustaz Modou moom lay waxal en tout cas ci kanam dinañ ci am lu ñu leer Adama nee na oustaz Modou Fall euh, yow maa ngi ñëw ci yow Adama moomu sax ma ngay jubali fële xam naa Zeyna di ngeen ma ko jéggal wala naa ko ci boole fàtte ko mooy ki nga xamante ni moom mooy Jeyla laa xam nga ni vendredi ba la passé la am doom euh, bu góor euh, yas ñu lay ñaanal bu baax a baax euh, fële ca Allemagne la doom ba juddoo tey moo nekk tudd bi ndax tudd laa ko mën a tuddee wala sax ngénte en tout cas tey ci kanam du ñàkk di ngeen am di ngeen am photo yi di ngeen am vidéo yi tudd ki nga xamante ni moom mooy Jeyla ak doomam boobu ñu ko si ñaanal jàmm xëy na nag du ñàkk bu ñëwee Sénégal dina def ab ngénte bu rëy ndax voilà taaw lañu koy daal ni ko wolof di waxee taaw dañu koy bégal taaw dañuy fës dañu koy fësal ba at ñëpp di ko daal di ko gis bu ñu fa jugee dañu dem si nga xamante ni voilà moom mooy Omoro Omoro nag comme ni ma ko waxee Omaro xam ngeen ni moom mooy defendre ki nga xamante ni moom mooy Waly Balago Seck euh, jours moom Omaro dafay faral di jàppal tànk Waly Balago Seck démb euh, comme ni mu joxe woon rendez-vous fële nga xamante ni moom mooy euh, ci aéroport Léopold Sédar Senghor bi ginnaaw la militaire yi daal di ko koy gàntal ndax dafa am autorisation ou en tout cas de façon ci buntu aéroport ba la taxaw fa mu taxaw jàkkaarloog presse bi di wax ak ñoom moom mi nga xamante ni voilà moom mooy bokk na ci ñu koy ñi xeexal Waly Seck wala bokk na ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor ci communication bi. nee na ci li nga xamante ni moom mooy wàllu wàllu album bi li ñu nekk di jaay nii ñu ngi commencé di battre ay record nee na euh, benn artiste kese moo leen ëppale à l'espace de euh, d'une semaine ñu jaay ba benn nombre bu bëree bëree bëri nee na loolu bi ñoom daf leen jaaxal en tout cas sénégalais yi ñu ngi cons ñu ngi jënd ñu ngi apprécier li nga xamante ni moom mooy albumu Wally Ballago Seck de toute façon ñun ñu ngi koy ñaanal quand même euh, ci voilà ci album bi li ci bëgg yàlla daal di ko koy defal moom. lu doy am fi nga xamante ni moom mooy euh, wala sax est-ce que duñu ko daal di daanale waaw voilà mën nañ ci ñëw mari nationale moo daal di teg loxo moo teg moo teg loxo lu toll si euh, juróom-ñetti fukk ak fukk ak benn doomu aadama yi nga xamante ni dañu doon yëngu ci li nga xamante ni mooy immigration irrégulière ñoom dañu doon mbëkki dem di wutale fi nga xamante ni moom mooy Espagne donc voilà bu ngeen ko gisee ci photo yi noonu lu ci gën a dém yéeme na te doy waar ñu ngi toll si ñaar fukk ak ñeent maanaam 24 femmes 16 mineurs ñoom ñu ngi woon ci ñu ci gaal gi donc boo leen ko calculer bëri na trop 24 euh, femmes maanaam ñaar fukk ak ñeenti jigéen ak ñi nga xamante ni mooy 16 mineurs ñu ngi woon ci euh, ci gaal gi ñoom nag marine nationale ñoom ñu leen teg loxo euh, maanaam ngeen teg loxo donc vingt 22h bi mu jotee démb ci 22h la ñu leen tegee loxo. ginnaaw bu ñu toogee une semaine ñu daal di teg loxo 1266 candidats donc en cinq jours cent 1266 candidats. ñu bëggoon dem fi nga xamante ni moom mooy Espagne jaarale ko ci mbëkk bi am na ñoo xamante sax dañu amee doom euh, ci yoon bi voilà récap du jour bi rek xam naa nag lu ñu ci cëralee ci waxtu taxu ko bëri donc 8 minutes kese la ñu jox leen li gën a euh, fës ci actualité people bi euh, Viviane xam ngeen ni jamono bi mu ngi diwaanu Rwanda xam ngeen ni ko dafa bokk ci nominé yi ci li nga xamante ni moom mooy Music Award African Music Award bi nga ni voilà côté partie féminine moom Viviane ngeen ko gis ci Princess Lover Princess Lover moom moo fa woyoon way bu rëy boobu noonu xam naa nag xale yi nga xamante ni ñoom ñooy Penda ñoom ñooy Zeyna fekk wu ñu way boobu donc voilà genre Basir Paa yi ñoo koy xam Mon Soleil le son bi tuddoon je pense que ñu ngi ko tourné woon France euh, Princesse Lover di benn monument euh, de la musique africaine donc mu gis Viviane kott ko image buy reflété lu bari ça tout simplement dire que Viviane dara la ci réew mi mais dara la également euh, au niveau international et raison pour laquelle gis nga ni mu ko côté photo bi da gis beaucoup d'amour et beaucoup d'appréciation en tout cas Viviane dañu ko nomi dafa bokk ci nomination yi ci côté féminine si côté musique euh, même si côté clip bokk na si donc Viviane ñu koy ñaanal rek tey la war a am je pense si guddi gi suñuy juumul ñu koy ñaanal mu daal di jël lépp li nga xamante ni voilà na euh, na jël lépp waaw en tout cas fierté la moom Viviane yaayu Zeyna mu nekkoon Zeyna ci réalisation bi nekkoon euh, Soxna Penda si assistance bi nekkoon Ousin ci présentation bi jaajëf. waaw yow mi bëggul dara rëcc la ci réew mi maa ngi lay digal nga suivre concept bii tudd récap du jour fii ci sans limite TV maanaam lundi ba vendredi dañu lay jox xibaar yu wér te woo muy wàllu people wàllu politique ba ci xew xew jamono tubaab bi naan ko fait divers dangaa bëgg a xam xibaar yi ñeel sa artiste préféré sa acteur préféré wala sax sa influenceur préféré récap du jour daf la koy jox en temps réel sans limite TV xibaar yu amul limite xibaar yu amul limite. waaw waaw yow mi bëggul.